jërëjëf euh, mbokk internet yi Thiès 24 ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ci seetaan beeg déglu bi ci seen émission keesu démb ak bu tey tey nag ñoo am fi sunu mbokk sunu xarit sunu doomu ndey sunu Doudou Doudou Doudou Ndiaye Doudou Ndiaye nekk melomaan bu mag boo xam ni partagé nanu musique sénégalais bi tese ak moom fu bare bari ci orchestre sénégalais yi ba ci artistes yi nga xam ni euh, nekk nanu topp ba jëm mag léegi ma ànd ak Doudou fi bari fekkee nañ ko si Doudou ñoo ngi lay nuyu. Ah, maa sant bu baax baax sant bu baax leen gërëm bu baax di nuyu waa Thiès 24 yëpp ah, leen wax ni egg na jàmm daal waaw. voilà tey danoo bëgg a fàttali démb. si musique sénégalais ci artistes njëkk yi nga xam ne jaar nañ fi waaye fi njëkk a commencé mooy ci sunu papa di sunu lépp Ibra kase Miami Ibra Kassé ku ko xam nga xam Miami ak artistes ya fa jaar ndax ne Youssou Ndour neen Pape Seck du saw ñoo ñëpp jaar nañ fi kan mooy Ibra Kassé waaw Ibra Kassé dafa nekkoon benn euh, koo xam ni bon da daan euh, dimbali musiciens yu bëree bëri bëri amoon benn boîte bu ñu daan wax Miami nekkoon Médina waaw tous les grands musiciens yi ne fii ci Sénégal yu bëree bëri jaar nañ fa y compris le ndombo de Dakar ñoom euh, ñoom grand Marsek ñoom Maguette Ndiaye ñoom grand Blin Ndiaye bi daan joué basse ñoom ñëpp ñoom Yaxya Fall jaar nañ fa fekkoon fa ñoom ay Omar Kassé ñoom euh, booba ñii màggagunu waaw nekkoon fa ban année la woon kooku c'est dans les années cent quinze soixante quatorze waaw ñoom nekkoon nañ foofu avant Youssou Ndour di ñëw avant Youssou Ndour di ñëw mu tuddoon euh, Sarbandi Ibra Kassé. moo nekkoon Miami ci Medina bi. ci booru poste ba. exactement soo euh, jàddee mel ni Daaray Kocc nekkoon nan côté yooyu. en face Daaray Kocc siège Daaray Kocc. amoon na un grand soliste bu bu daan accompagner Yaxya Fall bu tuddoon José Ramos. José Ramos. waaw moom it joué na foofu am na am nay morceaux. comme lu ci mel ne ay genre Sénégal bi ay je crois sax moo ko joué am na morceau yu bëree bëri yu mu joué xool sama Ibra Kassé boobu mooy papay Aline Kassé waaw Ibra Kassé mooy papay Aline Kassé di papay Doudou Kassé di papay Omar Kassé bi daan solo moo njëkk a solo Youssou Ndour ci jamonoy euh, Sarban Ibra kase booba temps euh, Youssou Ndour maa ngi fa nekkoon di woy ay àddina potunda la ku naan jox sa morom naan waaw yooyu jamono yooyu mangoog mangoog yow xam nga mangoog loolu say <laughs> loolu bu fa la boobu mais mais nag euh, instant bi Youssou Ndour wax yooyu mhm. fekkoon na ndombo woon euh, euh, instant ñoom ñoom yi ñoom Marsek mhm. génn Ibra Kassé dem former seen orchestre ndombo woon ñoom Marsek nag ñoom ñoom Rufisque la newoon mhm. bu leen Ibra Kassé di jël sax Marsek daraan bañ waaw mais après biñ biñ génnee Ibra Kassé lañ formé Ndombo woon bàyyi bàyyi ñoom Youssou Ndour foofa après euh, étoile Dakar. ñoom ñu formé seen orchestre ndombo woon les grands Maguette Ndiaye ndoom euh, Marsek Dou Sow ñoom Blin Ndiaye waaw Pape Seck Serigne Dagana Yaxya Yaxya Fall Malick Anne waaw Tama euh, grand Lenx yàlla na ko yàlla yërëm moom it waaw ak ki daan <laughs> ak ki daan joué ak ki après la ah. mais ki daan joué bi euh, ñu ko ñu déedéet euh, euh, kii la defal ndànk mooy grand bi daan Badou An. Badou An moom la waaw Badou An Badou An waaw moo daan moo daan joué batterie bi. Uh-huh. waaw ñoo fa newoon formé la euh, ndombo xewoon lool nag. Mm-hmm. xewoon lool nag jamono yooyu. parce que booba toll noon seen i doole lool. Mm-hmm. waaw boobu nag. ci instant waaw instant boobu nag ñoom ñoom yu ñoom Youssou Ndour ñoo nga ñoo nga Ibra Kassé ndax booba formé gum Super Étoile ndax eh, Super Étoile. Mm-hmm. Euh, non formé gu ñu étoile de Dakar. booba étoile de ah, bien. étoile gu ñu mais mais étoile. Mhm. guddul fan. étoile suy dund ci ay trois ans lay dund 3 ans yi. Iri Mbacke nekkoon. ma ngoog ay El Hadj Faye. Euh, bon étoile kay kaay la composition bi. Mhm. à la bon soliste. Ah. moo Badou Ndiaye fa nekkoon Badou fa nekkoon à la basse. Mhm. ñu doon Kabou accompagnement Alpha Sini Alpha Séni Kanté moo fa nekkoon comme accompagnateur. tama moom Mame Ané Fall yàgg na fa àll sec ma nga foon. ki ki ki daa waaw nekk parcelle nekk d'ailleurs. waaw ki daan tëgg tumbaay yi moo turoon euh, Matar Gueye. Euh, mënoon fubal. Mhm. amoon benn rastaman Abdou Fall. Mhm. ki daan Abdou Youssou daan wax defoon doon ko daaw fekkee déwén mooy moo daan joué Tembal mhm. waaw lool Temba moo xewoon. waaw booba Temba booba temps ñi fi joué batterie baobab la ay xalam ay ndomboon ñoo fa doon joué batterie. booba temps euh, batterie. Adam fay moo koy moo indi clavier yi ci super loolu super étoile la. Mm-hmm. Euh, Adam Faye moo moo ñëw. Mm-hmm. moo moo yëkkati musique gu super étoile mais boobu egg boobu ñun mais ñun ñoo ngi ci étoile ba léegi. voilà étoile Dakar ñoom ba du Ndiaye fa nekkoon mooy ñi ma lim léegi ñoo fa nekkoon mais guddul fan. waaw ah, fan ay trois ans la dund. waaw ñu euh, waaw ko créé parce que étoile mi ngi tas ñu ñoo ngi ko tas ñoom. Mm-hmm. le 31 janvier 1980. 80. la nga ko tas. la la étoile. la étoile la tas ñu ñoom ñu formé Super étoile. Mm-hmm. seen premier son Ndakaaru génn le premier janvier 81 mooy bi Abdou juf nekkee président. waaw ñu formé ko booba euh, booba nag mbay Guèye fay jamono jooju. la jóge Ndombo la jóge Ndombo ak Boy Jiri. waaw ñëw Ndombo woon. Mm-hmm. fekk si ñoom. Euh, non ñëw super étoile. ñëw ñëw super étoile. ñëw fekk si ñoom Jimi mbay mm-hmm. ñoom Pape Omar Ngom fekk ñoom Alpha seeni Kanté bàyyi noonu. ñoom Assane Thiam. Mhm. waaw loolu c' est et un. ak euh, ki yore woon Sasko bi kii. Ran Diallo Marc Marc mm, euh, waaw ak Marc Samb. waaw boobu Kabou moo leen di jouer basse. mais quatre vingt et un quatre vingt deux. Mm. dafa ñëw. Habib voilà très bien. Habib ma ngoog Habib dafa ñëw doon booy nekkoon ci booy super jamono yi fa la nekkoon ñu jëlee ko fa indi. Mhm. super jamono dafa moom daanaka formé na euh, ponk yu bëri ci jaar nañ fa. voilà ndax super jamono boobu ñem si yàlla Bayero Bass yàlla na euh, yàlla na ko yàlla yërëm. moom grand Bayero euh, nga xam ne moom moo créé super jamono. njëkk faa joué Bass waaw njëkk faa joué Bass. ma ngoog formé Omar bu baax. doo moo ko dugal ci musique Lapa Diagne ñoom ñoom ay ay ñoom. ay ñoom Aziz Seck. Mhm. moo daan tëgg sabar yi. Mhm. ah euh, ñoom Abdou Mbacké. Abdou Mbacké clavier bi. Mhm. nekkoon fa booba Moussa Ngom a nga foon mu boobu ñoom Modou Mayga. Moussa Ngom après ah, ah, woon. waaw ñee ñoo démarré woon ñi démarré woon sa kii la woon ay ñoom euh, Omar Pène la woon. Omar Pène moo fa nekkoon. Lapa Diagne. Euh, Lapa Diagne Bob Sen le grand bassiste. Ah, nekkoon fa ak kii l'autre là. ki daan joué euh, Aziz Seck daan joué Sabar. ak euh, ki yore piano bi piano bi Abdou euh, Mbacké. Abdou Mbacké Abdou Mbacké moo moo daan joué ndeysaan piano bi. Mm-hmm. mu nekkoon un très grand orchestre nag bu mag a mag a mag. Mm-hmm. orchestre bu mag a mag waaw booy ñi nit ñi grand yi bëggoon ko lool. Mm-hmm. waaw mais ñu delluwaat ci Youssou Ndour. Uh-huh. waaw après étoile de nag étoile Dakar moom du guddul fan. étoile Dakar guddul fan moom lim dund trois ans la. janvier premier janvier 41 Youssou Ndour formé Super Étoile. gars yi yi formé Étoile 2. Mm-hmm. waaw Étoile bu ñu formé Étoile 2 boobu. waaw El la bokkoon ah. non Étoile 2 El Hadj bokk ci woon. Mm-hmm. El Étoile 2 ñoom Malang Cissokho ñoom Étoile 2. voilà uh-huh. Étoile de boobu Ibou Cissé bii di joué ci Youssou Ndour moo fa solo moo moo doon solo ñoom euh, Malang Cissokho bii way euh, doomu sunjulu Seex ba fa nekkoon ah, moo moo woy warale ah warale boobu moo fa yoon euh, sama grand bi kii doon ko aw seeroon euh, sasko bi mm, euh, Ran Diallo Ran Diallo aw na ko waaw ak Manel Diop nekkoon nekkoon na fa Ibou Sy leen joué solo Kabou Gueye nekk moo joué basse foofu sax Kabou Gueye moo joué fa basse mais mais étoile boobu guddul fan ak Éric waaw moom benn benn vol la génne muy vol boobu. la génne moom ñoom maneel ñoom ay ñoom Malang Cissokho vol boobu ñu génne après kenn déggaatu ko après ci la gars yu deux ñu formé étoile 2000. 82 lañ ko formé. Mm-hmm. waaw boobu ñoom Zal Seck. Mm-hmm. ñëw ci mm-hmm. El Hadj Faye. Ah, ñoom Farba ñoom Farba Sène bi ñuy tëgg Tumba. Ah, nekkoon eh, ñu woon woyoon fa Samina mu mu jàll lool c'était en 82 mooy après moom it guddul fan. Mhm. ndax doomam mujj na ay problème ak Badou Ndiaye ba orchestre ba moom tas. waaw mais mais Super Étoile moom. Mhm. orchestre musiciens yu bëri jaar fa. Mhm. le grand Omar Sow bii di solo Youssou Ndour. di jëlee solo Super Jamono. en 87. nekkoon na Super Étoile. mais dara alterné ndax booba ñaari solistes moo ñu ne. jiwu mbéy mii ngay gis. guitare basse rek la mën. il bien le basse. la basse la la la moom danaan jouer guitare basse euh, su euh, su su Omar euh, Omar Sow jouer guitare solo. moom mu jouer am na morceau yoo xam ni Habib Faye day mooy jël basse bi. Omar Sow ñoo jël bi ji mbay jël solo bi. noonu xam nga booba jamono jooju Dakar. Mm. boo ni boo doon xool Miami Eh, nga ñëw Sahel sam set Sahel. Sahel bi nekkoon eh, ah, ah, bi nekkoon booru ga bi nekkoon booru nekkoon amoon na y' a un bu jaaroon ci Youssou Ndour encore. Mhm. dafa mujj décédé ndeysaan bu naan wax Daouda Gassama. Daouda Gassama. maa ngi ay moom ñoom moom nekkoon na fa moom ñoom Nicolas Menem. Mhm. waaw nekkoon nan fa loolu c'est en 82 loolu loolu ay 82 83 la. Mhm. waaw ba ñu ñëwaat tuuti ci Super Étoile. Euh, Super Étoile. après ci la nee na Youssou Ndour créé Super Étoile. ba mu ko créé tamit mu ànd ak euh, ki nga xam ni mooy nijaay ji. Euh, sa sant Ousseyn Ndiaye Ousseyn Ndiaye. Mhm. après si la mbay Guèye fay jógee Ndomba woon. ñëw ak Boy Jiri ànd ak Boy Jiri. très Jiri benn ndeysaan gaañu na moom it moom moom it eh, gaañu na waa Louga la. ak nen waaw voilà Marc Samb. ak Marc Samb. waaw euh, ak Pape Omar Ngom. ah eh, ki doon tëgg eh, kii eh, Pa ngoom Ngom la woon ak waaw ak ah mu nag Ali Penda Ndoye jaar na fa. Ali Penda Ndoye. Ali Penda Ndoye jaar na ah. bi Marc demee. bi ah. Marc Samb defee choc am boobu. bi bi neex gi. waaw bi Marc Samb defee choc. Alipene Ndoye moom moo moo fa remplacé woon. Alipene la jógee. waaw Ndëmboon la nekkoon moom moom Ndëmboon la nekkoon. moom Badou Diop ñoo fa nekkoon. moom Badou ak grand grand Pape Demba bi gaañu. bi daan joué basse. voilà boobu ñu ko fàttali ko nen Yaxya Fall. boobu boobu ah, boobu Ndëmboon benn affaire la. Ndëmboon boobu musiba. boobu amoon na benn animateur bu fi nekkoon bu ñu daan wax grand Claude Guèye. Kulul Gueye moo daan wax ni mangoog mm-hmm. moom moo daan lancé ndëmb woon ay ci yu bëri moo ko daan ah, moo daan accompagné fu daan ànd ay soirée mm-hmm. moo ko daan defal ay suite xam nga orchestre daan tëgg ba ci ay soirée ba ci digg ba danaan arrêté ñu def ay présentation yooyu mais grand Kulul Gueye vraiment liggéey na lu bëri ci côté boobu mais xam nga ndëmboon jooju dafa bëri woon ay centre yoo xam ne ku ne mën nga ne moom mooy centre principal ndax buñ ko fàttalikoo du sow nga fa woon du sow loon Pape Seck Pape Seck Maguette Ndiaye. Uh-huh. Ali Penda moom Mar Seck Mar Seck. Mar Seck après Pape Djibi Ba uh-huh. après Mar dafa mujj moom it. Uh-huh. Euh, année yooyu ay quatre vingt deux quatre vingt trois. moom it ñëw ci Snour. voilà xam nga loolu moo doon force suñu ndëmbawoon. mooy centre yëpp ñoom macha allah dafa nekkoon équipe. waaw waaw ba manqué rek du du par rapport ak léegi centre Sénégal yi benn kenn rek ngay dégg moo yor voix bi moom mooy diriger. mais nag Youssou Ndour Youssou Ndour na gërëm euh, sunu grand Adama Faye bu baax a baax. Mm-hmm. ndax Adama Faye moo ñëw indaale fa clavier. Mm-hmm. indi fa batri yooyu yëpp parce que amoon na benn benn. Euh, anglais benn français bu ñu daan wax Benjamin Valfroy moo fa njëkk a joué clavier. Mm-hmm. Benjamin Valfroy moo fa njëkk a clavier. waaw oh, moom Adama Faye comme Adama à part Adama Faye parce que Adama Faye bi la ci la Benjamin Youssou Ndour ci ko indi. mais Youssou Ndour Iring Mbacke Ndoye. Hmm. seen denc ko fii kees si cimetière fii nu mu tuddati Mouride. Abdoulaye Yakhine waaw Abdoulaye Yakhine moom ak Youssou Ndour étoile la nekkoon wala super étoile. étoile la nekkoon. ah étoile. étoile la ne Eric Eric demul super étoile. Hmm. El Hadj Faye super étoile. Hmm. waaw Alpha Séni Kanté fekkul super étoile. waaw ñooñu étoile Dakar lañ fekkee loon waaw mais moo tax ma ne bi ñu tasee eh, CP bi ñu tasee étoile Dakar ci ci la gars yi formé étoile 2 ci après El Hadj Faye ci la eh, étoile 2 yàggul ñu formé étoile 2000 mm-hmm. waaw. maa ngi fàttali ko à 1984 84 la. Euh, si di Diakhaté boobu la nekk ci euh, affaire yi moom tamit nekkoon collaborateur Youssou Ndour ñu Youssou Ndour ñëw gànjool euh, def fi benn playback moo indi woon fi coow lu rëy. yaa ngi ko fàttali àndoon ak Daouda Gassama ah Daouda Gassama. ay guddi je me rappelle très bien. kees ku mu bon na. 84 ah, ci boobu ci la Awa jën jënd. 84. Awa ak ay Naren Aada. Ah, ah. waaw yooyu année boobu ci la jën Mm-hmm. je me très bien fii la woon Gandiol gi mm-hmm. boobu grand ñoom grand Calix Ndiaye ñu fi ne woon. Calix ah, sa créole orchestre bu Soleil. Soleil ak ñi dem si àll Goro Mbaye ñoom Goro Mbaye ñoom Apam As Mbaye di woy. <laughs> na Soleil yaa ngi caran ba. non loolu beneen affaire yàgg na loolu démb la woon ah, Thiès. ah Gandiol xam nga Gandiol à 76 la ubbi. Mm-hmm. booba ay tur tànk mais dëggoon mi moo koy ubbi. boobu ñoom Cheikh Mbacke. voilà Cheikh Mbacke bu Alaaji. amoon ay amoon nag sama ñaari gars yu mënoon a fecc yu mënoon a fecc ay boy ndaw ku mel ne xoo Xoose Ndiaye Ibou Diallo. toj nañ fi ak yow mi <laughs> ak Duja Mbaye. ak mi ak sunu grand si moom yow na toj nga fi yow moom toj nga fi. loolu yooyu ay souvenir la. la. Uh-huh. Euh, milieu showbiz bi dund nañ ko am na luñ ci fàttali ndax Duja Mbaye mi nekk animateur tamit dund na ko nekkoon. ndeysaan sunu mag si moom française euh, animateur journaliste moom day def musique gu dem. Ah, ah. moo waru ko bàyyi quoi mu DJ Mbaye ah, moom warut a bàyyi DJ euh, musique gu ndax moo da koo xam. Mhm. waaw da xam da koo moo tax may da ko xam c'est-à-dire nit ki li nga dund rek nga man a xam mhm. man li ma wax li may nii lu ci bëri mhm. dama koo fekke waaw lu nekk lu lu ma liir lu ma ci lu ma net lii. lu ma dund la ak ñoom ndax booba temps musique rek moo xewoon. waaw booba temps. te booba temps solo solo bu jekk. correct mag ñi tamit jox cër xale yi xale yi tamit jox euh, cër mag ñi mais ñiy jaxasoo retrouvaille bi am mais càmbal càmbal gi nga fi gis ak saaga yeeg incorrect yi yooyu amul woon dafa amoon musique dafa amoon bu njëkk non éducation la ñu di musique dafa musique dafa amoon bu njëkk mm-hmm. bu njëkk euh, mbalax yi nga gis yëpp mm-hmm. amul moo ko fi indi mm-hmm. euh, booy yi gën koo gën mais ñoom ku ci masaan woy sax woy ay woy olof ci kaw salsa nga ko teg salsa très bien moom nga ko da ngay sol sol yu rafet booba temps je me tre très bien ndomboon mos nañ ñëw cees mhm. sol ay baylaat yu gudd ay ay setin. ñoom ñëpp ñu ngi roole ko. waaw waaw waaw ñoom tën de ay soie yu ay soie yu tën yu yu rafet la waaw mhm. boobu. koo ci gis xam ne kii musicien la. macha allah boobu temps Ndomboon mu ngi ci digg dooleem. waaw moom lu ne. man nag Mar Seck moo ne woon sa moo ne woon sama waykat. man dama ko faaw Pape wuy waalo wuy waalo boobu. jaroon na lu ne. waaw ak sunu grand jëm du saw. du ah, saw ndeysaan moom bu neex ba. moom ndeysaan xam nga jabet moo ko mujj. waaw ba ndagg tànk ba. waaw bañ da amoo même bi ndaggee tànk bi sax. bi ñuy woy Lions yi en deux mille je crois deux mille deux. Mm-hmm. amoon na benn bu mu àndoon ak euh, Fatou Géwal je crois xamu Kumba Gawlo xamu la ci àndaloon daal. Mm-hmm. waaw ba def benn benn son jamono jooju. Mm-hmm. Mm, euh, studio El Hadj Ndiaye. Mm, jamono jooju xam nga booba El Hadj Ndiaye studio te avant El Hadj Ndiaye tax booba ñem si yàlla Moussa Diallo bu Sangomar moo fi yoroon studio. mais Moussa Diallo ñu bari mais Moussa Diallo. Mhm, bu kees. mais moo moo mais moo daan ay ñoom Youssou Ndour ay Franky Sarr. Franky yi ñoom ah. Sangomar yi lañ ko enregistré. très bien waaw ah, foofu. ak Baobab. soo degee ci biir sax mi nga naan Sidi Diakhaté amul maas. voilà ca ca biir Franky Sarr boobu. très bien yaa ngi mhm. ñëwaat tuuti si Baobab. Baobab tamit. orchestre Baobab. le mastodonte. na xam ne ah non kooku. kooku moo nekkoon le mastodonte. moo nekkoon le mastodonte du Sénégal ñoo ñoo nekkoon ñooñu ñoo ñoo ñoo nekkoon les favoris ñoo ñoo ñoo nekkoon. Euh, waaw ñoo nekkoon orchestre grand yi. ndax ñoom booba temps. booba ñenn ñoo fa nekkoon fàttali leen. Mm. booba temps ñoom grand Ndiouga Dieng fan Bala Sidibé Rudy Gomis. ah grand euh, euh, bi daan joué solo. mooy ñag bi. waaw te dëkk Togo Atiso. waaw Atiso Barthélemy. amoon na beneen soliste encore naar bu daan bu ko daan mais benn loxo la bu turoon benn Benjeloum. waaw ndeysaan. Mhm. mais man bassiste balaa fàtte seen nom. man mais waaw waaw mi ngi sama bopp. Mhm. mais dinaa ko fàttaliku. <laughs> Euh, amoon après si la Thione Seck doog a ñëw fekk si leen. Thione Seck nag yàgg na fa déedéet déedéet Thione Seck jamonoy laam laay mbuub la fa nekkoon. la laay mbuub voilà ab laay mbuub. Thione Seck ñu njëkk na fa ñu bëri. Thione Seck moog laay mbuub nekk na noonu fa. Mhm. waaw Thione Seck euh, daanaka. laay bu ma koy jàngal woon lépp presque. dañoo génne ma sama doomu baay. maa ngi lekk bi ba ma. woy na ko baobab waaw voilà woy na ko baobab. waaw woy na ko baobab la ko njëkk a woy. fa la ko njëkk a woy ay ay Kumba Anta Diop leen Ndiaye yooyu yëpp fa la ko woyee. ñëw après bi bi mu créé Ramadan ay ay 82. 82 daan jël la ñool ñoo maase. waaw ñoo maase. Euh, xam nga ñoom ñoo njëkk Baaba Maal ci parce que Baba Baba bi mu koy fàttaliku ba ay années quatre-vingt yooyu yëpp étudiant la woon. université danañ jàng. après parce que bi ma koy xam ci ñoom si yàlla Pape Seck bu nekkoon ci USA. laa ko xamee woon mu ñëw di ko seet si. xam nga après ñëw na nekk gàncax fi basé. grand Pape Seck solis. waaw na ko yàlla yërëm ci la USA créé woon Moussa Ba Xaadimu Xayrul Xaadimi kees gii la woon fii ci gàncax <laughs> moo ko aw ci. Pam ah, ah. Boub moo ko aw. moo waaw ngéwél gi bambu ngéwél gi orchestre boobu ngéwél gi waaw après gars yi grand yi nekkoon gorom mm, nekkoon fa tuddoon la gorom sax waaw boobu la gorom lañ tuddoon la gorom lañ tuddoon daam yaa ngi may fàttali yàgg na <laughs> daam yaa yow yaa ngi yow yaa ngi may laaj mais yaa ma gën a xam yu bëri <laughs> non non xam la yaa ngi may eh, laaj waaye yaa ma gën a xam yu ah, bëree bëri non xam nga mais yow yaa ngi woon ci biir rek xam nga mais mm-hmm. des fois mooy ma day mais su ma demee ba xoolaat archive yi dinaa a ñëwaat ñu defaat benn émission ñu waxaat ci lu bëri bëree bëri bëri ah. ndax am na yu bëree bëri yoo xam ne il ah. ko ah. mais vraiment musique sénégalaise euh, euh, musiciens yi ay paroles yoo xam ne dalay nga xa nga jàng ci ba pare musique bi mais léegi mbëggeel rek la ñuy woy léegi sax musique dafa gaaw a gaaw a gaaw ba mhm. yow soo soo taxawee soo taxaw sax mu dem bala fi ndax musique bi léegi ni ko gars yi dafay mhm. parce que dafa am loo xam ni mhm. da ci joué bi fi Touré Kunda ñëwee en 1987 Touré Kunda dafay ñëwoon 1987 ñoom Jean Claude bi daan joué solo bi ñoom looy bi daan joué clavier euh, looy boobu looy boobu moo indaale woon benn marimba may ko jox ko ado je la ko may xaw ma Abi Faye la ko may morceau bi ci Abi fay njëkk a joué muy wëndeelu marimba foofu la njëkk a feeñ ci wëndeelu mais ni ko ni nga ko marimbaaye booba temps Abi fay moo ko fu njëkk a def par la suite nag ci la Tafa Faye ñëw nekk le roi des marimba. Mm-hmm. mais ci ci ci euh, Turikunda euh, instrument boobu mu joxoon ñoom la famille fay mm-hmm. ñoo fi créé marimba. Mm-hmm. la famille fay boobu. ah muy la famille ñoom Ndié fay Faye Adama Faye Lamine Faye ñoom Tafa Faye. Habib Faye yàlla na ko yàlla yërëm. grand yi waaw. grand yu baax grand yi ndeysaan. grand ah, ah, ah, dëkkoon dëkkoon Rue 10 Grand Dakar. dëkkoon Rudis booru Sayel fa la euh, booru kii. Cosaan Cosaan. ok. Cosaan waaw fa la dëkkoon ñoom fa la dëkk seen waa ñoom ay après ndeysaan euh, euh, kii nu mu tudd sax. Mhm. le musicien là fu nekkoon sax cax Turakunda nekkoon ci kii. kanti ci xalam de la nekkoon non fay maa juum sax ci Baobab la nekkoon. Mhm. waaw. mais Doudou daal tey moom kontaan na non. Euh, di mën amoon amoon na benn grand bassiste ndeysaan boo xam ni ku mënoon a baas la grand mu gàttoon nii te doon joué guitare basse ak sunu grand bi doon aw rek sa doon takk ceen yi. xam nga ñoom ndeysaan bi ñu demee aw rek. bi ñu demee ba ndomboon nag bi mu ba commencé am problème. Mhm. doonoo changé seen nom. Mhm. ñëw Thiès fii Thiès. waaw Thiès nekk nañu Gorom nekk nañu Gandiol. très bien boobu boobu nag lañ tudd Daara international. amoon nag ay mais attention am na si ay musiciens yu yoo xam ne jotuñu woon a ñëw. waaw mais nag am na ñeneen ñu leen remplacé woon. ku ci mel ne. Hmm. Ismaïla Ndiaye. Ismaïla Ndiaye te Ismaïla dafa dabee. je crois Ismaïla Ndiaye rakku Balla je crois rakku Balla Ndiaye la. Ah. Balla bii di woy Salsaros la. ay Ismaïla Ndiaye ngi woy Balla. waaw waaw rakku Balla Ndiaye la. amoon na Mbaye Diop. Mbaye te ba di xamoon nii. Ah, ah. waaw moom it dégg naa léegi borom xaalis sax mu ngi amoon na encore benn benn accompagnateur guitare bu ñu daan wax Thioune mm-hmm. temps yooyu seetlu woon de mbool soo ko soxlaa benn soirée di nga ko di nga signé contrat six mois avant doo ko ñëw ndax seen na amoon benn encore benn bassiste quoi bu doon wax El Hadji moo remplacé moom mooy bi grand Blin bàyyi yoo xam Blin moom fekkul dara mm-hmm. Maga Ndiaye fekkul dañ bokkul ci dara mm-hmm. ndax boobu bàyyi na mm-hmm. euh, euh, boobu daal daal ñoom du sowlo woon mais Pam Boub Pam nekk fa woon. daara wala ngéwél gi la nekkoon. ngéwél gi la nekkoon Pam Boub. Pape Mboup moo nekkoon njéewal gi mënoon a woy lool macha oh, allah baat bu neex waaw baat bu diisoon ba waaw waaw waaw amoon oh, na bu xaadimu xaadimu oh, xaadimu ma ngoog boobu la fi woyoon ah. waaw mu mu jàlloon lool mm, mm, mm. grand Gora Mbaye moo grand Gora Mbaye mii waaw Gora Mbaye maa ngi fàttaliku sama grand bu baax yàlla na ko yàlla yërëm 28 bii demee noonu dañte Njaga Mbaye ñëw fi booba la njaga nekk ci digg ndëndam. moom sama grand la góor may. booba ñoo ngi organisé fii ci norma euh, Concorde. yaa ngi koy fàttaliku. booba ay tout tànk la ñu. je me rappelle je ba ñu nekk jaar ci suuf baas ba maa ngi maa ngi <laughs> ah, ah, maa ngi fàttaliku. 88 la grand góor mbay ndeysaan <laughs> euh, ak ak ba dëkk Sampaate moo si si la aw si la bokkoon euh, ba léegi ni nga fi ñoo ngi koy nuyu. Euh, sampaate bu Kees gii la dëkk. ci nee na aw Diori waa kër Diori. tey mooy nekkul Kuli euh, Jeng. Kuli Jeng ah grand Kuli. <laughs> grand Kuli gaañu na moom it. Euh, déedéet déedéet ni ngi dund. grand Kuli Jeng non beneen Kuli bee gaañu. non non voilà ñaari Kuli la woon. voilà Kuli Jeng mais mais ñoom a mhm. Kuli ngay wax Kuli ndaanaan ngay wax te ba lool te gàtt grand bu gàtt ba. voilà ndeysaan yàlla moom it waaw nga xam ne ñu grand bu baax dëgg moo dëkk. ñu 88 ñoom ñoo ñëwoon ca booba guy njagaa ngi doog a génn. non njaga nag ah, njaga njaga. Mm-hmm. njaga kooku c'est un benn affaire la. Mm-hmm. njaga daaw daaw répété. njaga njaga day daan njaga xel ma daan woy xel mi. xel mi ndeysaan xel mi doon woy. Mm-hmm. waaw je rappelle mm, amoon na amoon na benn xalamkat bu ñu daan wax Maguette Diagne. ak ak Socé. Ah, um, ah, uh, grand Socé Samb. waaw ah, oh, Socé Samb. gaañu na moom it gawlo Socé Samb gawlo. gawlo la. boobu ñu kan aw Socé Samb la woon Gora Mbaye Ndiaye Samb Mbuub. ak ñoom ñoo ko aw grand kulu jeng ñoo ñoo koon aw mhm. maga jàññee ci xalam ah, waaw mais sabar yi moom xaw ma ngu ci nekkoon mais ah, vraiment ah, booba temps la ñuy woy ñetti abdu yi ñetti abdu yi xewoon lool nag ñetti abdu boobu lay doog a génn ma ngoog ñu woy xalam gi boobu loolu boobu grand maga ensemble instrumental yooyu xam nga yooyu yooyu yooyu affaire u ndaanaan la sa dafa manqué léegi c'est-à-dire Sénégal mhm. dañoo war culture bi mhm. mën naa am avec ñii avec ñu bees ñi dinañ dundal culture bu baax a baax ndax loolu mënut a ñàkk ci réew. tey ñoo ngi toog di fàttaliku yoo xam ni démb la woon. waaw te vraiment yooyu yëpp ay passage yu neex a neex la woon. te Cees booba neexoon. booba Cees melul nii booba Cees Cees Cees léegi cest à nit ñi nit ñi léegi dama surpopulé gën a bari léegi Cees jaxasoo. mais bu njëkk ñu ñëpp xamante woon. waaw booba ku dugg Cees xam na la booba temps ay show fii dañ daan ñëw tëgg show fii maire yi entrée cinq cent francs. ah Cees sa daaw ko feesal. waaw xam nga maa lay wax ay 88 nga xam ne lu mel ni Ndiaga Mbaye toll ci digg dara booba xam nga saal yi ñu ko doon defee amul mais dañ doon ñëw place bu bu vide man ni Concorde rek ñëw baas ñu daal fay. booba temps Thiès euh, sécurité police. booba temps Thiès ñaari euh, euh, ñaari saal yu ma xam ñoo fi nekkoon. benn nekkoon maire yi amoon na bu newoon ci mais bu newoon ci ginnaaw te gars yi toj ko. waaw. bi naan defi show yi sunu makkan sunu makkan mhm. sunu boobu mhm. ndeysaan je me rappelle très bien Royal Band bii tey mhm. 1987. Mhm. ñoo les ouvriers de ñu fa ne ouvriers nekkoon suñu makkaan. Mhm. ñoo def benn 30 ans décembre keroog Royal Band bii moo ko tëgg. Mhm. je me rappelle ñoom grand Issa Diasse ñoo fa newoon nekk solis. Racine ñoom Racine Aw Racine Aw. ak Pape euh, Demba Pape Demba Diop. waaw Pape Demba gaañu na. Euh, ak ak kii Badou Diop ñoom ñoo fa nekkoon. waaw ñu nekkoon orchestre bi. Euh, ak sama grand bay sa dëkkoon Balabé. waaw sa sa wayoon Serigne Bassirou. ay Alboury Mbaye Alboury Mbaye. sa sa numéro yi tan neexoon <laughs> moom moo moo may sa bi Kumba Fall. waaw Jackie Seck yor trop après ci la góor a après kii ñëw na Asmaay ci la mujj ñëw. Ah, ah, ah. waaw booba nekkoon orchestre bu ah, mënoon sax. waaw ndax boobu ak Seka mi booba moom moom moo sunu mag la wala moo ci fa nekkoon comme chanteur. ak mbay Mbaye Mampate Gadiaga bii tey ja moo fa moo fa nekkoon di woy yu bëri sant après ci la fa jógee dem Dakar. waaw Mampate Gadiaga ga maa ngi koy maa ngi nuyu wax ziar bu baax. jërëjëf waaw jërëjëf euh, Doudou Ndiaye kontaan nañu mbokk yi nekk ñoo ngi leen di gërëm di leen sant kees fu démb ak bu a ngi nii ci seen euh, kees euh, 24 di leen gërëm di leen sant ci déglu beeg seetaan bi lii lépp pour fàttali rek nii jaar na fi sur le plan culturel nga xam ni ñun kees nekk na yàgg nañ ko roy ci côté culture culture loo xam ne ay ndaanaan jaar nañ fi am na ci ay kees waa yoo xam ne tamit prouvé nañ ko doon jàppale artistes yu ak sénégalais yi kon nag lii rek pour euh, seen kees 24 indil la leen ko di leen gërëm di leen sant ci déglu beeg seetaan bi di leen jox daje ba beneen yoon jàmm ak jàmm.